Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. mbokk téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di addu ngeen di teewlu ci seen télévision Equivox TV ñu ngi fi nga xamante ne moom mooy ndaayaan boo ñu xoolee xam ne ñu ngi euh, toog ci gaal wetu géej gi fii mu ñëw seet si ndaanaan boo xamante ne kenn dootu ko présenté ci wàllum làmb muy Tyson numéro 2. mu nekk koo xamante ne doomu ndaayaan la moom laa seet si tey ñu fas yéene waxtaan xam ngeen ni ñun Equivox euh, dañoo baaxoo ci gaawaay ci pragmatique looloo tax nag ñu ñëw seet si gannaaw bi nga xamante ne adversaire wala mën nañoo wax ni kenn ci xale yi nga xamante ne euh, dañoo nekk ci làmb ji euh, ñu nekk ay yaakaaru làmb muy franc dëkk ko barki démb ñu gis lim ci wax mu bëgg a yaatal ak moom rek Tyson maa ngi si waaye maa ngi lay fay Omar di nuyu élage mi nga àndal quoi di leen bëggee bu baax yéen ñi nga xamante ne leen ko jóge ba dakaar di ñëw di ma jël si quoi kontaan naa si yéen trop. naka Ndaayaan. waaye Ndaayaan a ngi fii rek. Eh. waaw Ndaayaan a ngi fii de mu ngi fi di neex. waaw. alors ñu gis ni Ndaayaan macha allah euh, euh, euh, napp bi macha allah gaal yi et xam nga féex macha allah fii seen seen seen liggéey lu ci ëpp napp la. waaw boo déggee boo gisee ñu ne Ndaayaan gaal yi ñoo tax. waaw moo lii ko affaire yooyu. mais maa ngi gërëm ñëpp di gërëm mool yëpp waaw ndayaan moom mu ngi fi di neex bu baax a baax a baax mm-hmm. man mii fi nga toll damay dem géej damay dem géej de waaw bi sa bi saison ba damay dem géej waaw xam nga mbër moom waru yor benn métier waaw da yor métier yu bare quoi bu fiy dëgëree nga dem fee mm-hmm. donc da ngay napp di dem géej danga yor ay gaal tamit yoo moomal sa bopp waaw maa ngi dem géej maa ngi sant yàlla rek waa di dem géej maa ngi sama gaal di dem géej quoi d'accord naka liggéey bi lan lay jur ci ci ci réew mi euh, réew mi di ndaayaan waaw liggéey bi day sunu instant bi dañu si sant yàlla bu baax parce que waa Ndayane ñëpp ñoom instant bi ku si amul beneen liggéey rek yaa ngi si géej gi même du ndaayaan kese ay waa Kaolack fu ne nekk nit dafay jóge di ñëw si Ndayane fii di seen géej kon loolu dañu si sant yàlla bu baax. xanaa euh, looloo indi euh, Tyson bi. Tyson bi euh, Tyson numéro euh, Tyson Mohamed Ndao Tyson nga tuddee nga dippee sa bopp. waaw Tyson nag moo ma tuddee boppam. moo ma waa waaw Tyson nag moo ma tuddee boppam quoi. moom tuddee boppam. waaw da ma fekk dañ saal ba may contact. waaw mu ne ma yow yaay Tyson 2 moo ma tuddee boppam. kon yow bokkul ak ñi nga xamante ne dañuy gis benn mbër daal di ko euh, fan tuddee ko sa bopp yow da nga def say preuve ba mu ba mu bëgg la. non man non dama def sama preuve. Hmm, si biir bi si contact la ma gise mu ne ma yaay Tyson 2. man nag ma kontaan si nangul ko loolu quoi waaw. depuis lors après euh, nga nga nga nga ak sa doomu ndey Eumeu seen génn nga dem écurie Tyson. Eumeu Sène moo ma andi si écurie bi Eumeu Sène moo ma andi écurie Tyson quoi ah moo ma andi bu écurie bul faale waaw léegi nag si la léegi bi équipe bi amee problème nak comme que moom fa andi woon ma dem àndaat ak moom loolu rek mais man ak Tyson dañuy déggante nice amuñu benn problème daal maanaam. mais euh, Tyson lan mooy sa problème ci làmb c'est-à-dire su ma waxee lan mooy sa problème ci làmb dañuy gis ne am nga 19 combats hmm? euh, mën naa wax ni am nga 17 victoires nga nekk mbër moo xamante ne macha allah bi nga duggee ci làmb ba tey yaa ngi def sa ay preuve mais sa ay morom lan moo tax duñ la jël. non waaw loolu dama ci sant yàlla bu baax parce que samay 18 samay 19 yi gars yi dañu yaakaar ne euh, retard la ci làmb wala mais noonu dama def benn année six combats six victoire benn année finalu arena bi si arena bi dama def six combats six victoire uh-huh. donc indi. looloo indi. mosuma def année balance nag mais yaaguma si làmba ji 2009 hmm. laa bëre sama premier combat waaw gars yi yaakaar ne làmba ji muy loolu. mais bu ñuy dégg Tyson 2 gars yi dañuy foog ne Tyson dafa yàgg ci làmb mais. alors que ñoom Balla Gaye ñoo la jiitu foofu si làmb non bu la ma jiitu fuuf ñoom Balla Gaye ma jiitu fuuf Jaguar moo ma njëkk a bëre Jaguar sama deuxième combat fekk muy bëre troisième combat sama premier combat fekk muy bëre troisième combat sama gaayen la kon loolu yaagul xam nga émission kuy fëgg bi man maa ngi ne woon man Sa laa bëgg a bëreel wala wala wala kii say beneen booy bi mu doon bëreel beneen écurie la booy ngaay ah Boy Ngaye waaw émission kuy fëgg maa ngi ne bëre lool waaw maa ngi Boy Ngaye laa laa bëgg a bëral te Boy Ngaye laale nanu man ak Boy Ngaye laal nanu waaw waaye Sa la ma laaleegul yàlla def ngay tegle ay victoire yàlla may la tur ci làmb ah ba nga ba allah bu ñu waxee assurance bu mbuur nga daan ko waxatuma parcelle li nga fa def ah victoire yi nga tegle mais lan moo tax mën nañoo sa yenn naataango yi di la bañ a tàllal loxo. non boo gisee loolu gars dafa am lu ñuy sóor rek hmm? gars yi dafa am lu ñuy mais du lenn loo xamante ne muy loolu gars yi kenn ëpp ma si combat kenn ëpp ma si victoire kenn ëpp ma si supporter gars yi dafa am lu ñuy sóor loolu la rek gars yi xam nga mbëri moom lu yomb la ñuy seet lu nooy rek la mbëri di seet mais man seetu ma loolu man bi ma dëree bëre bëre lan lañ may ñan lañ may jox dañ na booy man maa leen mag mais ku si ñëw loo si jële ah mu ngi noonu nag. kon man laa làmb mooy sama métier man damay bëre. Hmm. Hmm. ba ci ba ci ba ci ba ci sa dernier combat ñu gis ni yaa nga ko bëree ki nga xamante ne moom mooy Gora Sock hmm? ñan ñi foogoon nañ ni euh, mu jóge ci Baye Mandione indi benn doole ju extraordinaire bi mais tamit nga jaarale ko fi ngay jaarale xale yi. non man mbër boo amee doole bu naan dañu am doole man loolu du ko gis quoi parce que nit mën na mën na la ëpp nii rek mais doole biir dafa am. mais ñooñu ku ma si jàppal amul kenn koo xamante ne yow yaa ma si ëpp doole te gis nga combat fi muy mujj rek man samay ent sama combat bu taxawee man damay entraîné ba waaye de du ma suma ku ñu ne kii entraîné wul. mais moom mooy franc këram ñuy wax yow yaa wax euh, sànq boy yi démb dama jëli ji euh, ki nga xamante ne moom mooy franc di waxtaan ak moom ba mu dugal la ci waxtaanam ne Tyson 2 daf laa bëgg. buñ ko indilee sa avance moom daf koy lekk. waaw moom am na si droit parce que am na si droit moom mbër la ndaanaan la champion la waaw am na si droit mais man euh, bugguma bëree koo xamante ne dañ naan kii kat kii yaako ko moom wala kii paala wala leneen man ñu ës ñi laa bugg a bëreel. Ah, booy déggoo li ma la góor soog asul. góor na. assurance asul. ës hmm? waaw garga garga asul. garga deux asul. kenn ndax ko waaw mu ngi noonu man ñi ma bëree dañoo ës ñoom naka réel Fifty Cent Boy Ngaay malien bi mu naan defe di jeex na man jaar ma fen foo xamante ne dafa yomba de man kenn taanalu ma yoon mais dafa am mbër yoo xamante ne mbër Dakar yu si bëri dañu leen taanal yoon yoon lañuy gars yi di seetal rek. mais mais mais mais Tyson su ma la déggee ngay expliquer dafay mel ni yow da nga bëgg a tëkkale Franc ak ñooñu nga jot a bëreel te Franc gis nañ li muy def ci dafa ravager lu simple ñooñu xaamewu ma leen sax xaamewu ma leen Franc góor a soog muy man xaamewu ma si kenn sax man ñëpp la waaw samp man ñaata yoon laa dugg parcelle parcelle trois fois laa fa trois fois nga dugg waaw trois fois laa fa dugg ah ku ñu ñëw day day dem rek sangu ji waat loolu la yàlla di dogal rek yàlla moom mooy dogal loolu booy bu <laughs> man waxuma booy bi am na ñeneen ñoo xamante ne ñoo gën a as booy bi waaw. yow gis nga ni booy bi yow bokk woo ko sax si booy yi nga xamante ne mais booy bi ës na quand même boo booy bi li muy bëree li mu def barki Dembo Ndiaye bébé Saloum nga xam ne booy bi neexut a bëreel. yaa ngi comprendre yaa ngi ko bokk ñaar yoo xamante ne bokkuñu da nga ne bébé Saloum ne Tyson 2 bëgg a wax ci qualité muy lemee li muy lemee. ma ne yaa ngi boole ñoo xamante ne bokkul. da nga ne Tyson 2 ne Bébé Saloum bokkul. donc Franc li muy def gars yi nii nii nii nii bokkoo si ñi nga xamante ne day ñëw rek lem lem. non man gisuma ko de. xooloo ko xooluma ko sax man su ma su ma su ma bu mu taxawee damay entraîner lu mu laaj dama ko si def bu bés baa du ma bëri ñi di ma jéppi man noonu laay def. toujours for naa ci wéwu bay nii gars yi démarché nañu combat boobu. ah waaw gars yi ñu ngi koy def daaw ba rek ñoom ñu ngi koy wax. Hmm? mais làmb ji amul kenn koo xamante ne fi mu toll nii dañuy bañante yëpp fi mu toll nii dañ ne benn catégorie la bi rek fi mu toll nii man nag du ma nekk mbër quoi toog di xaar man bu man damay bëri ji bu bëre jotee damay bëri ji parce que man maa opté bëre parce que ana gars yi xamante ne bëre wu ñu ñuy toog ay 3 ans 2 ans bëre ñu koo si xooloon tey koo si sëgale woon benn combat fi dootu ko mënati hmm. waaw yaa opté bëre bëreel rek. donc compétition bi nga ci gis ak euh, euh, li nga xamante ne toog bañ a bëre pertement bi. man damay compétir man bu ma sañoon damay dem bëre ji mbapat bëre ji waat mbapat di compétir parce que maa ko opté bu ma demee nag ba ba ba xamante ne man bëreetu ma ma dem bàyyi bëre bi hmm. suñ may wax avance ma bañ ne duma ko jël ma bàyyi bëre. ma ne bul wax Franc rek góor a soog ñan la daan kontaagal. bi ma daan bëri foofu fu mu ne woon de xanaa 100 pour cent bi amul woon. 100 pour waaw 100 pour cent du kenn koo xamante ne moo ma ci man. nga ni. 100 pour cent boobu du kenn koo xamante ne moo ma ci man. parcelle bi. bu pour man yaaga naa ko wax waxaat ko. yaaga naa ko wax waxaat ko. du Modou Lo roi des du du Modou du kenn. amul waaye parcelle laa wax si boppam amul kenn koo xamante ne moom fo daax amul te li ma doon wax ni bu ñu sëgoon di contact fii ñoom ñëpp ma ramasse leen loolu man maa ko wax. Tyson li ngay wax li ma wax fu laa ko teg. mais Tyson nga foog ne <laughs> nga foog yi waa 100 pour 100 parcelle gars yi duñ la waajal yow. non ah mais mbër mi yow ku ci nekk da ngay am mbokk rek boo jëlee sa combat ku ci nekk da am mbokk dem toog ak ñoom. man bu ma demee bu mu amee combat damay ànd ak sama doom day ama seen dem liggéey loolu la rek. waaw. mais beneen bi moom mooy 100 pour cent Pikine bi sentiruñu la ci torop Tyson lan la li nga dëkk Ndaayaan la li nga dul ñëw torop euh, Dakar la euh, rawatina Pikine lu nu mu demee noonu. man su ma amee komba su ma béré pare fan laay ñibbi sama ngeemal Pikine laa koy tike door a finaan ñaari fan door a ñëw Ndayaan 100 hmm? pour cent Pikine bi nag man yaaga naa ko man gisuma sam bopp ah ndax li ma dëkkul Pikine la. ndax loolu la 100 pour cent Pikine dañ naan Boy Niang Eumeu Sène Ama Baldé waaw mu ngi noonu kan moo ma victoire wala kan moo ma fi ëpp combat man xaw ma affaire bi lan la damay toog di xalaat naan affaire bi lan la hmm. waaw mu ngi noonu nag moo tax ma ne xëy naa li ma dëkkul foofu la. mais sa diggante sa diggante ki nga xamante ne moom mooy euh, Eumeu Sène parfois nga dégg ci ay problème parfois nga dégg ci ñu ne non gëj nañoo déggante ñoom ñaar neexow mën nga cee leeral mu jeex. Eumeu Sène day mosuñu am benn problème Eumeu Sène tudd naa ko doom mosuñu mosuñu am benn problème sama mag la te sama mag lay doon tey jii bu ma demoon sax. Euh, yaakaar naa waxtaan bi euh, mën nañoo wax mën nañ koo Francois Tyson ma bàyyi la euh, nga tàggatoo ñi nga xamante ne ñoom ñooy say am di jàmm waa Ndaayaan également ak ñëpp ñu lay seetaan. waa li may tàggatoo moom. maa ngi jaale ku si mel ni suñu papa xali papa Khalifa Gueye moom dafa génn àdduna si temps yi passé nii moom sama combat amul la mu si daanul def waaw moom sama lépp da si daan taxaw bu baax mais dama koy ñaan yàlla na ko yàlla xar aaj na waaye doomam ay doomam yàlla bàyyi ña fi man ña sàmm ba si kanam kanam waa di gërëm waa tund wi répp Popenguine Popenguine séréer saafeen daal maanaam baat ñi yeen tubaab jalaaw waa géeraw maa gërëm ñëpp Joal Jifir Palmarin di gërëm ñëpp di gërëm waa Ndayane bu baax a baax ku si mel ni Mansour Thiandou suñu maire bi di ko gërëm Sarlo Faye Ibrahima Pouy Ndey Seen Aliou Samba Ciss Serigne Mbaye Thiandoum di leen gërëm bu baax dañu si sonn bu baax a baax a baax ay suma ama seen xam nga rek dañ si jàpp bu baax. voilà mbokk téléspectateurs yi ni ngeen ko gisee Tyson la ñu ñëwoon. fekk si ko fii nga xamante ne moom mooy ndaayaan daal di euh, waxtaan ak moom yaakaar naa li ñu leen indiloon euh, neex na leen di leen jox dig daje fan yi rek incha allah ak beneen champion peace